kanat mu biiroo jamral xadaa xalu xadaa yata mal malat mu baabarñoo bi fil markabi ci yandoor waay yata wassanal wajdul amidu saha saha فاستعلنت بتلغف وتوجد وتوسم تنلو الوجد تفكفل العميد إدراج سمنا ثقافتها كبير ثقافا ويجي قلم bal boo demee fu muy ne ci jëmm dafa am benn bor benn bor lu mel ni bor lu koy muur loo xam ne du am benn bën bën lu ko mën ba bënn du ko romb ba àgg ci xol moom la ñuy wax saxaaf bu mel ni toogal rek moo mën a moo ko mën a romb moo moo ko mën a romb bu dugg ci biir xol wala njàqara rek moo ko mën a romb bu dugg ci biir xol mu ne taxaw toogal su gën a biir sa aafam ba nelaw ca xol ba mooy sax ko ba nga xam ne jiw mu jaay génn parce que la nag mu wóoral di delloo si jëm ci njàqare wa tawajjudin ak njàmbat mu ne mu jaam ba ko ba xaw nañ caabi mu xamee ne tam استعلنت ظهور بطلب في مثل وتوكد أنجمت ورمت بمختلف مثل محروبة خلف القنوط لما لها من فرقد ورمتهم جاه moo mu xooloon bi mu xoloqi mu tilin ci nagu bëtu maanaam ci ci ci kam nagu bëtu xoj biir gay borom dune maxrubatin bale buñu rëcc li ma li nga xam ne laxaa ñeexal na ko min farqatin ci xol asal xanoo si ci gannaaw rëbb kat mu ne bi mu mënee jàpp que li may nitu mooy faj biir boobu am doom ju ndaw ab rëb ab rëb bu daal di ñëw rek ñu doom ko doom ji ba moom ba ba xool rëbb bi xoolal métti bi xoolal métti lu boobu ak muy tool boo xam ne dara bëtam doy na ci lool wara na mu jaa bi mu talati muttilin ci gune maxroo batin gëre guñu rek alfalqanuuti ci gannaaw rëbbkat li ma li ñaal li nga xam ne lahaa ñaal na ko min harqadin ci sën la wa tasawabat habaratuha wa tasaadat safaratuha tasdo bi qawlati munsibi la marhaban bi gadin wala ahlan bihi wa damu yadhaluha makan al ismi bi wata tawa ba dal di wàcc abaraasawa ay e rongañam mu ne mu jooy jooy yu nit nga gis rongañ yi wàcc wata saxaata dal di wóoj abaraasawa ay e sottatam nga gis mu nga gis muy sottat daa jot di himmat parce que juróom ba ne mu joow mu ne mu jooy wax ca kaw te mu si leen ci war a di mu ngee joor wayu naadu hawa naan laa marhaban bi gabin wala ahlan bihi te way waxaa bi naadu gabu subyaani mu ngi bokk ci arab yi ci lislaam bokk ci jiit bi ñuy wax banu subyaan kenn la ci juróom benn ñi ñuy wax asanra u sitta siyaab ibnu umaama mooy lim tudd waaye mën a wéy boo wax artu moo taxoon ñu doon ko wax naabixa naabixa mooy ko raw maasam ay wéyam ngàntu lu bëri na ci lool dafa am benn xabiba baale yo bu mu defar dafa melal mu tajarrida mooy jabari buur bi mu jamono anteetoon xam a ne loolu mooy di leen soobaloon ba mujj di ko xaj di ko ngantulu xam ñu wax leneen boo demee ci la jëlee satru bii parce que wax ne amina de may da ngay ci àllu may wala da ngay ba xew fee ci alu mayya ajulaana lu ci mën da doon boo ko yottanti lool nag da nga wut yóbbal wala doo ko wut aminaale mayyata raihun aw muxtadi ajulaana saasaatin wa xayra musawwadi la wax ba ne asifa tarahulu xayra anna rikaabana لما تزل برحالنا وطأ قدي mu ne daanaka jot jot na xam naa doo taara xamut jot jot na xam naa doo taara xamut te daanaka am na asifat tarahuli xayra ann rikaabana lamma tazul bi rihaalina wata an qadi te daanaka jot na فهم البوارث أن رحلتنا غدا كفاك خبرنا الخباث كفاك خبرنا الخباث الأسود mooy ndax am baaxal bi ñu li ñu xam mooy suba la rexla bi ñu jógee ko fii bàyyee ko ci àllu may ya zaamal gawaare yi أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغباط الأسود منك لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريط الأحبة في غد mu ne xam nga su su dee jëla fasee tàggaloo kenn du ko wax ahlan bi kenn du ko wax marhaban bi marhaban bi ka arab ko waatalee kat mooy ñu ngi lay tatagal ak tatagal rabbana waatale garitam ahlan bika wa sahlan ahlu mooy ñeñ soxlu mooy doy lañ jëfandikoo noonu ci yaatal kan naan ahlan bika wa sahlan dañ leen na fekk ñu nekk ay mafool ci fin di ñu àfak nga jublu ci dong sa kër taw nag bu mooy saadaf sa ahlan wa sa sahlan bu ko defee toogatul istiamaale bi dafa tax buñ soxlaa safaan bi dañuy indi laa rek ñu wax laa marhaban bika wala ahlan bika wala sahlan bika laa marhaban benn marhaban bi xadin xollëg wala ahlan benn ahlan bihi xollëg mu mu ngi yuuxu de dafa joor ni yàlla ji xollëg waaw ah, gannaaw xollëg ci la soppe woo tàggaloo imkaana bu ne wa dama toroon nañ yasxaluha dana tusgal hind makaanal ismi bi ca barabu daju tusgalukaay mu ne seen daan rëdd pastal bi bu ko defee mu ñuul ak tusgal te ay e rongañ boo fa jaar mu fee xet wa yaqullu wa yaqullu rawdata wajnatayha wal xayaa في الروض ينبت كل ظهر أغيدي طريقت فأنبتت البهار منورا وعضلتها فصبغته بتورده ويتم بلوغه raw dafa waj na teyaa ñaari loxam ya mel ni toolu dër muy ñaari loxam yu naati mel ni toolu dër su ko joo bañ teew ak rongañ su joo bañ teew ak rongañ mel ni toolu dër bu hiis wiisam على كل عقاب والحياة لم يثبت من المزهر وغاية الفكر te loolu da doon jël ci kër gi ah yow li mu gënoon di nekk yow xam nga ne taw taw bi kat da ngay ci toolu jot rek kilo bi rafet génn te jël naa li comme taw la ah jooy jëm jooy bam comme taw comme taw bi taw la jooy jëm jooy bam taw ba bam tooy comme bi ñu jël la ci tool kon war na la am couleur couleur bi lim la mu ne sëree xam

waaye ñoo ko wax ne jeex na rek xam naa ci loolu waa bi lay xam rek xam naa loolu yàqam ne daga ba pare rek ci kuraare ka bay waaye ku ngi pare ci kuraare ka bay ne jëri bi daal saxaar la jëndi mu waaye bi ñu yettee borom saxaar bi jëmu suuf bi nekk wax daal saxaar la lakkat على أجل ماذا من أجل يكثر من والحياة في الروض ينبت كل زهر أغيب فرقت فأنبتت البهار منورا وعدلتها فصلعته بتوردي وخجلا وتزيد تلطن الملامة لعلها تفني عناني أو تملك مقوتي فاو وتظن تغسل باللحاء ذؤابتي وتلين مني مطمر حين عقلتي mu ne waya kull mu ngi wis wisal moom hind rawdata wajna tayha dër ba ñoom ñaari nekk tangam lañ muy mu yi muy jooy rongañ ji tooyal ñaari lox ñaari lexam lim lay ni dum mooy tollu dër bu xam ne day ca daja taw taw wis wisal ñaari lex yi niñ taare niñ taaroo tooy tooy rong dee wàcci rong nañ du ko tooyal te comme taw wis wisal war naa génne tóor tóor bu rafet xanaa tóor tóor bi lum def donc waaw waaye tullu dana mu wis wisal moom hind rawdata wajna tey haa dër baa moom ñaari nenk tengam la wal xayaataw fi rawde ci tooli dër yi yum bit dana mu saxal kulla zahrin gépp tóor tóor الطائفة كلها جنات تصور بلوم ده مغانا فري قتيدنا فأنبتت مسحل البهار بهار منورا بلوم راجي تصور النور وعدلتها من يدفو وطبعته مصوب بهار بوبو بتورد سوارك من يدفو السيس صح بهار ma yàddu ko mu suubu nekk ward tolu dër bi loolu la indi bi mu tiitee ba jooy ronga ñi mel ni taw wis wisal tel may li baxaar la sax waaye bi ma ko yeddee nag baxaar boobu mujj na suubu nekk de ward maanaam hind dafa njëkkee xoon jaaxle tel may li mandargaam jaaxle feeñ ci bi muy jooy waaye bi ma ko waxee dëkk nag dafa mujj ci definam wi mëccal may le mandargaam kersa moo jaay feeñ gis nga baar tóor tóor la day am ci tooli dër yi warda moom it day am ci tooli dër yi baar day nete warda day xonq arab na pour mu ne cëlmaayam nete na maanaam lu ëllëg xam nete na kinaaya la ci jàq na bu ñu isfarrat muqlat isfarrat wajnataahu wala isfarrat xaddaahu day wane ne moom ku jàq la buñ ne ihmarrat wajnataahu wala ihmarrat xaddaahu day wane ne kurus la sa'altuha sa'altuhu qiblatan minni ala ajalin fahmarra min xajalin wasfarra min wajali sa'altuhu qiblatan minni ala ajalin waaw fahmarra min xajalin wasparra min wajali mu ne kon Hind dafaru dafa jaaxle ci bi muy jooy doon jooy comme ku am lu ko jaaxal ma yedd ko mu mujj dëru mu mujj am kersa continué de jooy comme kurus ma doon affaire baar la saxoon waaye bi ma ko yeddee dafa tuub mu nekk ward moom daal bu jëkk istirarul xaddayni lañ doon nemmee ko ci moom muy màndargaal njàqare waaye mujjanteel gi ixmiraarul xaddayni lañ ne mais ko ci moom muy mandargaam am kersa am rus rus daal nga taw ne waaw bëri ah, ah, xat tiit na moom hind ah, fa am batat mu saxal al bahaara bahaar mu nazaran mbirom mu daaji tóor tóoral waadaltuhu ma yeddu ko waadaltuha ma yeddu ko fa sabaxtuhu ma suubee bahaar boobu bi tawarrudin ci warga wa tadunnu dana jortu ne ah wa tabiitu dana mu fanaan tal sunu ni dama jëm almalaama yeddeel laallaha ngir moom fas nii dana mu wëññi xenaa ni sama bopp aw tumal la ko wala def na ko moom loo nekk wa di sama notka mu ne woon ca bàyyi ko na wax joo xamul ma waxam ju bëri jooju day tax man ma bay li ma nekk wala ma di jaam yox yoxi da ko fekk ca nam jay tëralee fekk loolu lépp lenn du jaam man li ma jëmmal ba xam ne mooy baax du ma ci dellu gannaaw su ma demee baax nga fekkoon ne mooy xawee yoon xamal ma njëriñ noona lay set Ah, li ma gis ba xam ne mooy li baax ma jëmmal ko loolu moom waxi kenn du ma ci taxa dellu gannaaw saaka koo xam ne ni mu bëgg lay xalaat su ma demee ba engagé ko itam nag tere li nu kenn kenn kenn du ma ko ci seet lu may rek tëral ba di yoonam xam ne moom may indil njëriñ moom it dina dafa xamut loolu mu foog ne engagement coow lu bari dafay tax mu ne ko kon moom dëpp naa banaa ko wala maan ko comme sama kàddu gis na mënuma koo ba léegi na bëggee ma defee ko ñaareel len du jàmm wata biir dana fanaan tal sunu nii dama jam dama indil dama teg almalama yedeel eh, la allaha ndax moom tas nii dana wëññi ay naa di sama bopp aw tuman nag wala def na ko moom loo ne koo di sama nafka wata sunnu ah wata sunnu dana mu jortu ne tastilu dana barame su abati sama jubbu billi ha ay ci yetteel mu yaakaar ne sama jubbu wi ma wat ba mu dëkk ma defar ba mu dëkk jarat ko ba mu dëkk wax ju bëri na tax ma yàq jarat loolu du ma ko de waaw li ni nga xam ne fu dëgër laa ko teg su ko jaaree mooy yoonam mu foog ne waxam yu bëri dana ma tax a man sama sémb loolu du ma ko def de dafa ne waaw euh, wa tadunnu dana jortu mais tafsilu dana baram su abati sama jubbu dana barame sama su abati sama jub sama jubbu billahi ci deel watulinu wala dafay noyal min nii ci mat na rom xin gannaaw ak guntu xasla din gudaaji dëgër wala suma dogu bi ak pas bu dëgër bi mu defee waxam yi jëmul fenn man nay tax ma yox yoxi du ko xam daa xam ne foofu ah ku borom yitte gu kawe su fekkee lu am njëriñ ba jëmmal ko su neexoon na pare du ko sottal ah moom lam xam gëm ko moo ko war a moo moo ko war di kondiir waaye nag ñoom xamatul yitte xamut ak ñoom xelaat su leen su leen rek dana taxaw te du jot wala dana ba lu ëppoon a waaw boo dee hitte bu kawe nga jëmmal lu am solo ba engagé ko pas-pas bu dëgër xam nañu boo leen sa nopp ñu fàtte loola sa xalaat bi rek dañ mujj yàqal la subhaana bakkan lu tamhadu min nasihata barratan wa nusu awinatan maqalatu mu'tadi wa taxaalu muy jortu naan tam xatu dana ma sellal an nasihata lahi biir baratan mbir moom mu daa baax léeg-léeg moom it daf ma naan li ma lay wax sa bopp rek a tax soo la bëggal mucc bañal la loru waaye man boo demee si may ba boo dikkee fekk ma fi boo dikkun man ma ne fi kon su la naan bul dem yoo la bëggal jàmm rek bëgg la nof lay dund mooy li lay wax wa taxaalu dana jot ne tam xatu nii dana ma sellalal a nasihaata lay biir baratan mbir moom mu daa ji wax baax wanu su lay biir nag aawi na tan ci jamono maqaalatu mu'tadin waxi aji huruj la léeg-léeg nag nit dana waxi kàddu ni du mel ni moom amu ca dara ca lam lay wan te fekk lépp ci moom la dellu wax ji wax ji yëpp daal bëgg man ma nefi rek da ko faree fi mu bëgg rek du ma yëngatu ci le ci lenn loo xam ne dama cee defaree ëllëg waaw loolu rek la waaw wax ji man ma nefi rek waaw da ko defal li mu bëgg rek bu ko defee moom mu faree ma du ma yëngatu ci lenn lenn loo xam ne dafay nekk sama njëriñal ëllëg yëpp loolu la wa tusirru xaswan في ارتغاء تارة وتقول أخرى خامري وتلبدي فتصر muy nëbbu xaswan góor في ارتغاء ci xoy muy muy lato xoy tey góor da koy yiidoo ne ko may digal waaye boppam lay waxal nu ma kalee rek ba ma nekkal ko la xam nga soow la nga tiim ko wane ne dangay dindi tilim bi pour naan ak keneen pour keneen mën a jëriñoo ci sa liggéey waaye góox nga fay def xam nga dangaa tuddoo nekkal nit ñi waaye sa bopp rek nga ne al moom dafa tuddoo ne damay digal sama njëriñ damay wan damay fanqal lor ndax àll bi nii ndax àll bi naa waaye dëgg dëgg daal nu ma kalee ba man naa doog ku ko nekkal rek di ko fare fu bëgg rek su ko defee muy ma gàllankoor ci suma tekki ëllëg fa tusirru muy nëbbu xatman góor fi tixaayin ci way taratan ci jamono wa taqul muy wax uxra ci beneen jamono nan xaamiri wa talabbadi xaamiri umma amrata wa talabbadi arab da koy wax su déggee bukki sab waaye xaamiri gaawal wala muurul nëbbul wa talabbadi te nga gaaw te nga dox boo déggee bukki sab dana gaaw wala gaaw nëbbu la gisee ne bukki jàmm waaye sabab ngi moo la tudd rek lu ci tegu ku fi xabaalaki la abaalaki innani awisul marami an nibalil mufnidi lu ci tegu la amul ba wanna wala ara waa bii ki qaqaati sinaani muhayyadi li tegu ah mu ne ku fi sagal xabaale ki sa wàññeeku xel kenn du wax na ko yëfi dof yi ngay def nii ba ko laa ba déet bàyyi lëcc da la ñaal yow daal dëgg dëgg kenn du yow bàyyi li ngay def nii koo xam ne moo lay koo xam ne booy xam dara moom moo la yee nga ne nang ko nax inna nii man hawisul marami aji jëfeñ ci sànni waay la an ni balil musnidi wali fetti aji fen man duma koo xam ne dañ may napp ci waxi caaxaan yu jëmul fenn ndax li may gis ak li may dégg sama xel mi da ciy liggéey waa sa wax yu jëmal yu fenn yi nga defee ne man mën na maa gàllankoor ci li ma bëgg kooku bàyyi ko dalay tardé dalay yàq rek coono bu amul njëriñ rek la laa ar amu déet may sopp ra am mooy ni nga gis ndey de soppe doom al baw wa hampaañ am na fuuxa gëri guñu wal mu ne man duuma kuy jaawale hampaañ ak fëll maanaam gëlëm boo ko bëgg garab bu yoxoo malut xeenaat bi yow man la koo ñoddi ba soow génn souvent da ngay jegeñal doom ji mu gis na doom ji day namp mu yoxoomal xenaat bi nga ñoddi soow mën a génn arab yi dañ daan def soo amaan gëlëm yàlla def doom ji dee te nga bëgg a wéy di ko rat di ko rat da jël doom jooju nga butti ko dindi bagage yi woon ci biir yëpp jël lu mel ne kataxak yooyu yooyu sol ko ko ba jëmm ji fees ba boo ko taxawalee day ni du sëll saa soo bëgg a ratt ndey ji rek boo ko jegeñalee mu foog ne doom ja bëgg a mu yoxoma leenaat bi nga mën a ratt li nga soxla loolu noonu ñuy def doom ji ci gannaaw bu mu dee ba ndey ji de ko teg sëll moom la ñuy wax bëwu ma loola bi wax campagne xam nga su fekkoon ndey ji ñoo naxee ci loolu li bëtam di tegee dafa am xel mu cay liggéey dana xam ne lii du sëll ndax luy dund ak lu dundut ñaanaa xam ne waaye gannaaw na bët bi li muy xel mi liggéeyu ci mën nañ koo nax ci loo xam ne lu dara ba mu ne dara la dégg nga wala ara den may gis waa bii ki gis naa ci sa baay xaqaata sinaani baati sagar mbuus mu haye di ne dañuy yëngat arab yi dañ daan def ku bëgg a faj ci gëlëm mbuusi rootukaay yu ràpp xam ne day nekk der yu kotom ci ngay dajale boo demee ba ko gëlëm yi wëttee boo koy fàttalante day def yëngatu bu xiir a xiir yëngatu boobu nag day tiital gëlëm yi su ko defee ñu seet seet nga topp leen ci ba man leen a jaarale pour tax seeni waram duñ ci jot ak gis nga sagari der yooyu man da ñi gëlëm dara waaye gannaaw li muy dégg nag xel mi liggéeyu ci bu yëngatu bi xiiree rek moom mu daw mu man du nit koo xam ne ay wax yu bëri yu jëmul fenn wala ay mbir yu dul dara yuñ may wan dañ ma caa napp de dama liggéeyloo sama xel ci li may dégg aussi damay liggéeyloo sama xel ci li may gis moo laara mu den may sopp albawu hampaañ am na fuuxa gade guñu wal walaara den may gis waa bii ka ginnaa ci sa baay aa kaata sinaani baati sagar mbuus mooy yéen bëri bu ñu yëngat waaw bokkal ay yi waqani hayaa aki innani aliful liqa ama man wa armi lil jalilil aqmadi wa axuddu bayna muhajirin wa muharrisin ansi wa bayna musawwibin wa musaahidi fa in insanat bil xunmi fa hiya xariyatun aw axfaqat yawman mu ne ko wax ni na nga kot xayaa ci sa kersa ama man ci fu jegeñ mu ne ko bul tàggi sa sag sa wax yi dama cee jëlee xam ne mënoo maa muñal rek waaye du ma tax a toog wul jeexal sa sag sa wax yi ah dama cee jëlee xam ne mënoo maa muñal rek waaye du ma tax a toog inna nii man ani kulli xaar ku bañ mbir yu suufe la man lu dul dayo du ko def muy dayo te ndaw koy nobanteel rek comme dayo genn góor ah, ku gën a ñàkk yar ci mën na koy ah, ku gën a def gannaaw ci góor ñi mën na koy am waar mi danaa sànni ne dalili jëm ci aji màgg al aqamadi lu daa ji të man su ma bay engagé lu rëy lay engagé lu xam ne ku tekki rek moo ko mën a sottal ndax xam naa ne tekki haadi jabun ci man suba pare huma noppalu sonn ci lu am njëriñ lay def wa ida kanat in nufuusu kibaran taayifat fii muradihal ajsaamu nit bu demee ba gis ne war da soof rek coono dikkal na ko ndax dootu xalaat di def gannaaw moo tax ne inna man ani fulli xaar ku bañ mbir yu suufe waar mi danaa sànni li dalili jëm si aji màgg alaqamadi lu daa ji të wa ahuttu danaa xiir xan si sama gëlem bayna muhajirin ci diggante aji njolloor lu aji dox digg bëccëg wa muharrisin ak aji tët tëtlu tenris mooy dangaa rañaan ba guddi da jeex bi nga de nopp lu tuuti di mos tëdd wa bayna musawibin ak diggante aji wàcc wa musayidin ak aji yeeg dongo mu ne man fas naa yéene kuy sañaan gannaaw ci kawe rek nga jëm maag yow lay do de kuy rañaan bay tët tëtlu gannaaw ci kawe rek nga jëm maag yow lay do de kuy wàcc xur gannaaw fekk nga bëgg maag yow lay dode kuy yéeg dama gannaaw fekk nga bëgg maag yow lay dode man lu rëy laa de jëmmal te fas naa yéene def ci lim laaj ndax ma am ko fas naa yéene def ci lim laaj waa xustu danaa xiir an fii sama gëlëm benn muhajirin ci diggante aji njolorlu mooy ku de dox bëccëg wa muharrisin ak aji sëttëllu mooy kuy dox cat guddi maanaam ku rañaan ba cat guddi muy noppalu wa bay na mustawi bi nag diggante aji wàcc xur wa musaye dina aji yéeg ba moom fay nin sanat bu wëññeekoo bil xun mi ci màng fa ñoom hariyatun aji xeyoo la ko a wax faqat wala mustawi yow man bis fala su deen man biaw hadin ma raaji wét ci loolu suba li may góorgóorlu bu dee sama sansan ci danaa ko xam te xamee ko ci ndam du ko xamee ci gàcce bu dee sama chance nekku dama ko ñàkk léegi sama chance nekku ca rek waaye duma ko ñàkkee ci yedda ngay ñàkk a góorgóorlu de su ci tegu wala xattaxittu wadan ixwani axan xilafan walayta wafaahu lam yaltadi ومقت وصلهم فأعرض جافيا أبدا علي wala it too lam yabadi mu ne wala xattafif tu mu ne wala xattafif tu jàpp naa wadan ixwaani tàgg samay bokk axan mu de mbokk xelafan mu daaji sell wala it too faa weelante woon matalam lam yal kat du ma tëkk mooy li ma bëgg dafa man da sottee ci lu dul génn wuti ko loolu moo tax ma tànn génn mel ni moo ma gënal lu ne xellante woon xam ko toog xam ko dikkaat toog mën a am ma doon dem naa tàggoo muy suma mbokk ba xellante woon bu mu rek li ma bëgg dama mën da sorte ci lu dul génn wuti ko moo tax ma tànn génn ba mel ni moo ma gënal lu ne waaye nag xellante woon xam ko def ci toog mën a am wala xat taxit jàpp naa wa daa ixwaani tàgg samay mbokk axan mu de mbokk xelafan mu daa ji sell walay tawafaahu on matalam lam yel kat du ma tëkk la kat mooy tëkkinu tilim so de loo xam ne li mu bëgg rek moo ko tax a taamu waaye du ko neex wa mextu sopp jokk bokk yi fa arada muddu mooyu jaasiyan daa ji beccingal abidan daa ji mere xale ya wala it teew xelante woon lam ba su ma mere bëggoon naa mën a xam toog te li may xam maanaam bëggoon naa li wut bu man koo xamee ci toog kono ni damay toog waaye xam naa ne man wut soo mu si sopp naa was la hum bëggoon nekk ci bokk yi te li ma jëmmal man di sot saa rata mudd muy moom was la hum jaafiyan daaji beccingal abidan daaji mere xale e ci man waaye xamal naa sama bopp ne du ko tey ci toog wala itoo xeelantam la muy ba duma mere baax na ko kambal datin faaraqtuha wa ahibatin waddaatu anhu din safa wa tawaddudi wa alifi sidqin lam ubali firaqahu wa naxiibahu xalfal masaayal waxadi wa mabaytu quduman wal asa waqadul juza fa basatu fawratahu bi fadli tajalludi xata kaanni ma wajadtu bi mawqifi alaman nawa wa xutamuha fi l akbudi wal baynu yaalamu wa sababatu ma ara minhu wa in tasalil madami tasadi mu ne kam baldatin bëri na dëkk fa raqatuha boobu tàggoo naa an wu ci gannaaw cobeel an bi mën baada safa góob sell na nekk ci dëkk ba jot fa bunte su ma ràññee jeex ba tàkk ma bàyyee kooku loolu bëri na lu ma ko def wa ahibatin bëri nay soppee wa daxtu ñuñ tàggu naa leen am tawaddu din ci gannaaw fexeel cofeel bëri nay soppee xam ne seq naa ak ñoom ay mbir xam ñoom ay jaar-jaar yu am solo ma xëy benn bi tàggoo leen ak la nekk day neex neex fekk man dama nekk nit ko xam ne dëkk bu neex nii rek wala ay xarit yu may dajeel ni rek duut lu may dëj ci barab déedéet man dafa am lu ma ñor rek loola fekk mu ngi dox rek ah danaa fi nekk su lajee toxalu rek man ma nekk moo fi tëjul su la yee torox toroxal rek ma toroxal moo tax ne kam baldatin bëri na dëkk faaraftuha boog tàggoona ak moom waa xibbatin bëri nay soppee waddaatu ñuñ tàggoona leen an wuddin ci gannaaw ak cofeel safa ak sell na wa tawaddudin ak sañal cofeel waali fi sidqin bëri na xarit bu dëggu xaritoo lam ubaale faale huma diraqahoo sàggaloog moom wa naxiibahoo ak dëjjantum xalfal mataya ca gannaaw waru way alwaxadiya da way jaaw yàgg naa am xarit wala bëri na xarit bu xam ne bu dëggu ci xaritoog man la su ma diggante ak moom lu sori la àgg nañ fu kéemaane ci miinante ma de ko tàggu tàggatoo ba daw yaram toog ba mel ni tàggatoo ak mutanabi mutanabi ba mu ne magal wadaao wadaa al waabeqil kamidi mu ne tàggatoo bi du tàggatoo ak nit ak soppeem nit ak soppeem balil wadaao wadaao ruuxi lil jasadi tàggatoo ak ruux ak jëmm la waaw ne sama tàggatoo yow du tàggatoo ak nit ak soppeem waaye tàggatoo ak ruux ak jëmm la waaw madal wadaaho wadaaxal waame xil kamidi balil wadaaho wadaaxu ruuxi lil jasadi bari na xarit boo xam ne sama tàggoog moom noonu lay mel loola nag fokk si yuuxu dana ca bokk su ma koy jox gannaaw rek mu ne jërëw waaye man damay dàq dàq rek way mel ni yëguma sax ne mu waxoon waali bi sibtin bëri na xarit bu dëggu xaritoom lam ubaali saalihuhu siratowo tàggaloog moom wa naxiibuhu ak béjjantum xalfal mataya ci gannaaw waru wayi ak waxati wéde wayu gaaw wa madaytu may wéy rek xuddu man tenja bañ tàggoyee ba mu ne jërëw yooxu man damay jëlal rek da kay wéy rek wal asa te njàqare waqadul jusa cam takka takkatal ngànje la takka takkatal ay xal la te nit la ne moom rek li muy yëg lay yëg moo tax sama xol bi fu ñu mel ni safara ci nekk ndax nit du tàggalaw parce que ma dëgërale sawratoo lakkatam di fàttali te jëllu di cinde di te góorgóorlu lenn rek moo ñuy xaajale ah li ma yëg ba jóg ak li ma gëm ak li ma yaakaar mooy li ma dëgëral ba ma mën a wéyee yu bari te moom loolu amu ko moo tax nga gis ci moom loo gisul ci man li mu yëg yëpp maa ngi ko yëg parce que nit ku ne li métti ci nit ñi day métti ci moom rek wal day nu ma araan li may gis minu ci moom wa sababatu cofeelit xam na li may gis ci moom ndax loolu ci tegu حتى كأني بدانك من ما وجدت سجتما بموقفي ثم تحوكاي ألم النوى ثم تحوكاي ألم النوى ميتي تتعجلو damay dëgërlu di dëgërlu di muñ ba mel ni li muy yëg yëguma ko boo saamu haa te jaasim fil ak buddi nekk na ci samay rek te fekk na li muy yëg yëg maa ngi ko yëg ndax nit ku nekk nit la rek lii métti ci nit ñi mooy métti ci moom te nit nag moo ragal tàggaloo ak li mu tàmm tàggaloo ak wéttalam wal benn te tàggaloo yàlla mu dana xam maa ara li may gis mën wu ci moom wa sababatu tafaccafeel itam taalamu maa ara minha mu ne te tàggaloo boppam xam na ne sonal na ma bu doon kuy leeral tafaccafeel xam na ne maa ngi jànkuwante lu métti bu doon kuy leeral waaye te sax te boo laajee almadame ronga yi taswaat dana ñu lan xamal mooy tox bérik dana mbir mi lu mu gën a gën a bu teew samay bët ngi fat rongañ loolu rek mandarga la ci ne maa ngi yëg luy nit baatu sahida dafa am maana sahida bi maana hadara ak sahida bi maana axbara ak sahida bi maana alima ñetti maana yooyu ci la ñuy jëfandikoo baat bi waa wayn tas alil madame a taswaat bi maana tox birka wayn al boo laajee al madame a rongañ aw sax danañu la xamal gis nga ko bu baax a baax ah, sahida adlekhu ala maani salaasatin min dooni ma buhtani mu ne baatu sahida jëfandikoo ko ci ñetti maana xadara aw axbara summa alima mooy xadara axbara alima kama bi qaala imaamul ulama mu ne njiital borom xam-xam moo ko wax te mu imaamul Qarafi mu ngi ko bi naan Furuuq والوفاء سجية لأخي ولست بذي الوداد المسند إن راغ ذو ود فلست برائغ أو جد حبل إخائه لم أجدد وحفظتها ذا الود حيث نأت به دار وأستبقي الورى بتعهد كتاب ولربما ساق أبان فراره طول الليالي عن ضباب لبتي وطردت سائمة الهوى عما ارتعب من وده مستوبل مستوبل lahum daleen wasiqu mu ne wasiqu dëggal sajiyatun jikko la min nii ci man mu ne man ku dëggu laa su ma li ci man rek la koy wax waaw li ci man rek la koy wax wala faawa ak matal kóolëre li ax yi sama mbokk su ma àndeeg nit su ma pasanteeg nit itam la nga xam ne mooy matal kóllëre rek moom laa de waaye te ànd nit di ko wax lu dul dëgg da pasanteeg nit da ko war yooyu du sunu mbir ndax loolu lépp sell bi la loolu lépp kilim la loolu lépp xopp la te dama bëgg nag nit ku sell bëgg nag nit ku wérita wala su déet man bisil wi daal may borom ak cofel almus mi di gudaa ji néew xaritoo goo xam ne xaritoo gu solo la kooku man du ko def suma ma xasee ba ngëb damay ngëba ngëb rek waaye ngëb ngëb lu nii rek waaw mas la nii rek pour bëgg man di jëriñoo nit ci nii rek yooyu man du ma ko def man su may damay xaritoo rek moo ne wala su man jëlil wi daal di may borom ak cofeel almus mi di gudaa ji in raaxa bu koojee soo wutin borom borom cofet wala su den man biraay xin ma daa ji su fekkee nit ki dañoo séq xaritoo ñu dem ba ca kanam mu génne melow xor de wane luñ ko fakkee loola moom moo koy def waaye man xaritoog nit da ko wan melow wum xamul da ko wan melo woo xam ne doon naa bëgg a man du ko def man daal gannaaw gëm naa la ay dama lay dëgg aw jatta wala mu dagg xam ne ixaa yi buum ak mbokkoo xam lam aj dut du ma ko ma dem ba ànd ak nit li nga xam ne moo ñu boole muy ko sàgganee man loolu du ma ko def waaw su ak mbokk jokk ga xel la ca bokk ga dama koy def bu dee diggaale lay koy sàmm bu baax moo taxoon imraaxa bu koojee soo wutin borom cofel wala su den man biraay xin maraaji kooj soo amee xarit boo xam ne foo feeñal meloo wor meloo jàmbu meloo tef ci kóolëre man du fekk du ma tuub xaw jadda wala muy dagg xabla ixaa'ihi buum ak mbokkoo xam lam ajub man du ma ko def wa habistu wattu naa ah wa idaa uhaaqadu bu fasanteefeeg man lam takun du nekk xoqadi samay pas-pas kum soo tatan de fas rek su ma demee bay fasanteeg nit du ko def muy fas rek pas rek ci pas-pas bi mën nay bëtu lool rëy loo loolu neex a fay ci lay doore dafa am ci nit ñi ñoo xam ne xamuñu way la kulla wala nga ngëbanteeg nit ba jëriñante njëriñ lu sax am ci ngëbante ga ah dañuy càmpalaka ma rek nekk nit yi riit ah fuñ xaw rek dañ ko dërërëri bañ xam ne ñu ko mu man tuuma kooku nekk dañuy ko jiit rek waaw ah. nekk di nit ak wiis ñi rek waaw boo di xaw rek ñu xam ne xaw nga fa waaye fullay nag sax na nag wala wa maanaam fulla nag wala matal kóolere wala sax nag ba mën a ànd ak nit ba ngeen jëriñante kooku amuloo ko loolu man du man waaw ah, lu tuuti rek sax di la bàyyi nit lu tuuti rek sax di la bàyyi nit lu tuuti rek sax di la bàyyi nit te àddina laaj muñ lante loolu man du ko àndee kenn way daa waxaa xadu bu fasantee rek man man su fekkee dama fasante nit kóolëre wala xaritoo wala ko lu mën doon lam sa kun du nekk xokka biir samay pas-pas kun soo tatan defas rek man damay bëgg pas-pas bu wéy bu mu fecceek wala xosaran du caa gën poñetam xosar ala mustawqadin ci taalukaay safara xosar benn gàncax la bu xam ne soo ko taalee day def sàkkan lu leer nañ lu weex tàll waaye day dem biir biir rek fay ci sax leer gi yàgg fi ba nga jëriñu du am wala taal bi yàgg fi ba nga jëriñu ci tàng ji loolu moom du am biir biir rek fay lay doon waaye dana dem biir nag yu kiir moom waaye dana gis doom leer gi wax nañ ñi lu weex tàll waaye nag balaa ba jëriñ la far dem dafa am ci nit ñu mel noonu ñoo xam ne ay riitkat lañ fuñ ci xaw rek tërërët ci coow li coow li yëngatu bi bëri lool waaye fullaye nag ah fullaye nag ah, wala kóole rek eh, wala sax ak ànd eh, ba jëriñante kooku moom du seen jëf mu ne loolu moom ñaanu ko yàlla moom dafay bëgg kum ànd ak kum ngëb nafa ci ngëb la ba ngeen mën a jëriñante gis nga loolu nag soo ko bëggee da ngay tàmbaleeg nit loo mën a wéyee waaw loolu soo ko bëggee di def da ngay tàmbaleeg loo mën a wéyee waaw xam nga la ko waxee de yow soo bëggee boo ngëbee nit ko ba da ngay dogu ca ngëb ka mu ku nekk jëriñu ca morom ma ca ngëbanteeg nit da nga koy tàmbalee noo xam ne man na koo wéyee suba da ngay wane dëggu rek waaw waaye bul loo xamut bul signalé noo melut waaw wane ki nga mu jeex nit lim na rek ci la mën a sax ci bayit moom la man di wii di wane loolu moo gën a noppale da ngay sànni ni baax xam nga la ko baax waaw yow soo bëggee boo ngëbantee nit da nga sax ci ngëb ko sax ci ko ba ngeen jëriñante sa ngëbantee nit da ngay wattande ko tàmbalee loo mante bi waaw te loolu bu baax a baax waaw da ngay départ rek ni nga xam ne mën nga ah wane ki nga ah di wax li nga xam rek mu noppale waaw. waroon wéy saa wax te du fasante teg man lam tëkkoon du nekk osoo tatan defas rek ci ak kat yi samay pas-pas wala xosaram du càggeen poñetam xosar ala mustawqadin ci taalu gaay safara waa waa fittu damay wat ah dal wut di kóol rek cofeel xay su naat ku fi soree ak moom daarun kër mu ne man gannaaw dañ ne maa yow la am na lu ñu boole lu xam ne laaj na may la sàmm demee ba sori ma loolam du ko fàtte waaw ah, nit ki bu ñu sama mbokk la wala sama xarit la wala sama kilifa la wala man wala wala sama njaboot la mu jox ma gannaaw du tee may sàmm ci moom lu nit war a sàmm ci mbokk mu jox ma gannaaw du tee may sàmm ci moom li nit war a sàmm ci xaritam waaw mu jox ma gannaaw du tee may sàmm li nit war a sàmm ci kilifaam mu jox ma gannaaw du tee may sàmm li nit war a sàmm ci njabootam danu ko wax waaw waa bi wattu naa ah dal wuddi kóllëre gi saka ay sunna at fukki soree bi ak moom darum kër man bu amee lu ñu boole nga xam ne jar na sàmm jëmm yu hante du ma ko taw a xam jikko bi ngay jël waa sabti danaa defal alwara bindee fi di temps udin ci nemmeeku xam naa ne ñëpp nag mënuñoo doon samay xarit ñëpp mënuñoo doon samay àndandoo waaye nag ku ma nekkin nag ñëpp danaa xam ak ñoom jàmm mi nekk waaw ku ma nekkin nag ñëpp danaa xam ak ñoom jàmm mi nekk li tegu wala ruba mastaaxin bëri na njaraakoon cofeel xabaana kog biral na furaaruhoo nattum tuulan la yàlla ci yàgg guddi am di baabin ci lu badin yu rëwëy sax mu ne na nit koo xam ne dafay naxe ci xaritoo su ngeen dajee muy la reexal reejoo neex dala waxal lu dul dëgg kenn bu baax a baax ah dana dëggalal lu mu xamul rek na mën a dëgg ci loolu moom dala jëriñoo ci intérêt boppam waaye taxul sax sa benn njëriñ sax ñor taxul sax sa mucc ci genn lor sax ñor nit dana dem mel noonu nga rafet ci moom njortu ba jàpp ne waaye la waaye loo gis mu xam rek na ko yàggagul waaye bu ngeen nee ba yàgg rek da nga ko mën a seetlu ci ay mbir ba xam ne kii daal day naxe mu ne bëri na ku mel nii dem naa ba yàgg woon ma ne kii damay nax wala bu ma saateen bëri na jaraakoon cofeel abaana kur biral na furaaru woo nattum tuulal layaali ci yàgg guddi yi am di ci mbañeel lu bëri ni rëwee sax fa tarattu ma saay matal hawa mbal dem bànneexu bakkan maanaam mbal dem fexeel an marsahen wali sàmmwaay min wuddi ci soppam mu taw balin bari bu ñu mbaslu mu taw balin bari bu ñu biirlu su ma demee ba xam ne kii mën na doo xarit lu ma ko jàppee lu mu duur dama jaaroo ci waaw mais léeg-léeg nit nga gis ko muy ku neexi wax neexi ree fekk wax ju neex jooja ak ree ju neex jooja soo ca déggee ba mu jot ci yow ah da lay jëriñoo ci intérêt boppam mais du la bañ a yàqal sax nag mooy ni dina dem mel noonu su ma rafetee ci jot njott itam suñ demee suñ demee ba yàgg wan ma ko man damay rocceeku rek balay sori loolu soo ko bëggee de man mooy da ngay tey ci nit bala nga da ngaa tey ci nit waaw bala nga ko dikk rek nga firee su mu dugg loolu guddi gi rek nga dugg dugg ba tey ah dama koy génn mu tëdd baax na foofu nit dina ko ba kun maaxilan lil xayri wastoxan lil xana mooy da ngay nekk nit ku xam ne buñ la seetee mbaax rek la ñuy nemmeeku ci yow wax yu rafet ak yu rafet te yenn yu doy waar yi bàyyeekoo ci nit ñi di jëm ci yow yi waxin la yi jëfin la yooyu da nga koy ci mooy bu mu la yàqal def lu baax nga wax lu baax na inna karaa'im maa xayita wa sami'u nga xam bu baax ne nit ñi li ñuy def kenn mënu leen koo tee def li ñuy wax kenn mënu leen koo tee wax kon feeg yaa ngi dund da gis lu len neexul feeg yaa ngi dund itam da gis ñoom lu leen neexul wa ahbib iza ahbabta hubban muqariban te itam sa lonkante nit ci wàllu xaritoo da ca xam fooy xem xam nga war a xem fa innaka la tadri mata anta naafi'un ndax ndeke jaru dara dafay am ndeke di jarul dara dafay am xam ne jarul dara nga mën a génn nag waaw xam fay xamoon ci njëgante nga may nit wa abxit isa abxatta buxdan muqaariban te itam ñàkk a jublu nit da ca def ndànk waaw ah, nit ki daal moom mel ni soppal jubluwu ko bul sax mu nemmeeku ci yow ñaaw ci adduna dafa lay ndax te xam-xamu nit bëriwul léeg-léeg nit soqal dana ko ne ñàkk ñàkk jublu fekk ñàkk boo xam dëgg dëgg dëgg dëgg la waaye buñ demee ba ca kanam rek da nga xam ne kii jar na lu ne xam ne jar na lu ne nga mën a fexe ba jëriñu ci moom loolu tey ci loo koy joxee gannaaw moo koy may nit waa fekk sa ak xabta buxtan muqaaraba fa innaka la tadri mën kaa xam dara ji waaw kon ñu jàng loolu nit dafa atawaytu xilman wa iadaan ala بللاته طي السقاء المنفد إن الزجاج إذا تناوله الفتى عنفا تصدع صدعة لم تجلد mu ne fa tarabtu ma dàq ndax loolu wala wa tawaytuhu wa tawaytuhu ma leem ko xilman ci lewet wa ixdaan ak ci dumoyu ala balalaatihi ci toy toyam te yestataay kem leema mbuus almun sidi mu daa ji tëggu mu ne su ma demee ba xam ne du xarit damay gaaw a ko ca saasa rocceeku yin woo xam ne dama caa jëfandikoo maslaa ak jikko ju rafet fekk rocceeku jëfeegut mel ni mbuus ak ndox gi nga duy ba fees arab yi dañ daan ruusoo te ay mbuus yi der mbuus gi nag boo ko duyee ndox ba mu fees soo ko sottee ba mu jeex da ngay ko takku ko ko yéex a talañ ba mu wow day kotom su ko tamoon a soo ko bëgg a leem day dem waaye si bi tax mi jeexee fekk mu ngi tooy nag leem ko takk ko dana yomb lool naka itam boo xamee ne mante wéy te su réegu la génn duy jafe souvent man ngay génn te du ñaaw ah mu ne man su ma demee ba xam ne lii man de wéy gannaaw su réegu ma faa di génn balaa mooy ñaaw ma génne lu rafet mm. wa tawaytoo man leem ko mm. xilman ci lewet mm. wayax daan ak dumoyu ala bala laati ci tooy tooyam damay dal di génn génn dama koy lema lem bala yoo rek te yette xaay kem lem ak mbuus al mun gudaa ji fukk inna sujaaji buteel ida tanaawalahu bu ko jottale ko alfata waay hanafan ci tatal wa saddaxa mu toj sadaxatan toj boo xam ne lam tug lat deebu ko jàng mu ne butéel bu fekkee manee wut li nga soxla danga koo tëral ndànk mën naa am ëllëg nga soxla lu manee mu jëriñ la ja waaye war la koo fit